ngeen wundu moom mooy objectif bi nga xamante ne moom ngeen ci man bégte laa ci am ndax daaw xam ngeen ne man waxoon naa ko fii xam nga fii sport bi dafa doon dem ku nekk di demal sa bopp amutoon benn unité ku nekk di waxal sa bopp ñu ne nag léegi ñun loolu dootuñ ko nangu que ne ñun sport bu ñu koy def dañ koy def nga xam ñëpp dañuy ànd xol ànd mu nekk benn ci biir région de Thiès ndax mu mën a nekk njëriñ njëriñu xale yi ci la ñu sukkandiku nag ñun ci. arrêté ministériel bu ministre des sports ak ministre de l'éducation nationale ñu tëral organes yi nga xam ne ñoom ñoo ñu permettre ñu am les comités ñu am comité régional boo xam ne gouverneur moo ko installé ñu am ay comités départementaux yoo xam ne préfet yi ñoo leen installé ñu commencé nag compétition yi ñëpp di waxandoor la même chose ñëpp di xool ci même direction ba nga xam ne ne tey ku gis lii mbégte lay doon te weer rek la def ak quelques fan depuis bañ ko commencé ndax mise en place organe yi dafa jëloon temps léegi bañ ci tolloo ba nga xam ne ne compétition yi démarré na yàggul sax waaye tey ku gis lii bégte rek ngay am ci sa xol. est-ce ngeen pérenniser action yu mel nii ngir permettre ndaw ñi ñu mën a détecter les jeunes talents. mais ñun loolu rek la ñu war a mën a def parce que tey ci benn at bi rek ñu taxawal organes yi ñun ci ay textes lañ ko teg ñu taxawal ko lu ñu mën a def mooy ñu évaluer li ñu def ren ci nga xam ne ni ci condition yu métti lañ ko liggéey. ñu évaluer ko améliorer dispositif bi ñu am nga xam ne ne njëriñ lay nekk pour ñëpp ndax sport bi il faut ñu pérenniser ko sport scolaire bi ndax def nañu relance gestion dinañ seet nan la ñuy def condition yan la ñuy mettre en place stratégie yan la ñuy développer pour que pérenniser ko ndax njëriñ la pour gone yi maa ngi leen di jaajëfal di jaajëfal tamit sama collègue inspectrice d'académie bi taxaw ndaxte tëral nañu. waaw ay stratégie yoo xam ne. dëkk jaxaw ah, tax na ba li ñu suñu tutelle demandé lim ñu laaj pour arrêt fu ñu mettre en application arrêté yu ñu tëral ñu def ko au niveau de la région. léegi nag lan la ñu war a def pour at yi di ñëw moo nekk teel a doxal compétition yi su at mi jee commence dooree rek ndaxte année scolaire. c'est du mois d'octobre au mois de juin fi mu nekk nii daanaka at mi mais bi dong lañ ci liggéey ci lañ ci dowal ay compétition li ci des yëpp dañ doon euh, tëral euh, comité yi kon boobu jaadu na at yi di ñëw sinon at mi di ñëw pour le moment ñu teg sur pied des compétitions yoo xam ne ca mois d'octobre lay démarrer ba ca mois de juin ñu jeexalee ko ak ay finale mais pour loolu nag yaa am na dispositif waaye itam jaadu na tamit ñëpp teg dugal ci tam seen loxo commencé ko ci collectivité locale yi suñu ministère de tutelle yi nga xam ne jàppale nañ ñu waaye ñu leen di ñaax ñu gën ñoo jàppale ndaxte pratique bi au niveau la pratique du sport au niveau ci région bi ci tund bi gis ngeen ko ñoo ko gisandoo xale yi su ñu jëlee au niveau de l'école gis ngeen ni ñu xarañee ci mbirum sport gis ngeen ni leen sport intéressé gis ngeen moment de loisir yi ñuy vivre yéen ñëpp am ngeen ci mbëgte mbégte kon boo ko euh, duñu dinañ gën a ñaax autorité yi ñu gën ñoo jàppale temps au niveau local qu'au niveau central di ñaax tamit partenaires yi tamit ndax sport tamit ak école partenaires yi tam ñoom ñooy tax tam ñu développer les partenaires tam au niveau de la région tam nañ ñuy gën a jàppale ndaxte xale yi le soxla nañ ko sport bi soxla na ko état bi soxla na ko. Euh, euh, euh, moyens yi am nañ parce que moyens yi ñu commencé ci xel te président de la république moo ñu jox moo ñu xelal jox ñu vision bi. vision bi ay technicien matérialiser ko ci pàcc bu gën a kawe ci pàcc intermédiaire muy inspection départementale muy gouverneur yi ñëpp jàpp nañ ci le résultat bi ngay gis ni résultat la acteur aussi à la base yi professeur éducation physique yaa ngi fi maître yaa ngi fi proviseur yaa ngi fi maire yi aussi jàpp nañ ci maire yi am na yenn préfet ak yenn maire yi ci jàpp donc affaire ñëpp kon ñun am nañu ay moyens moyen mu ngi commencé par les ressources humaines maintenant dama ko fàtteewoon wax ci français bi xëy na ren mii rek nga baal ma ci kii bi 20 pour cent ñi liggéey bu baax 20 pour cent la ñuy yokk seen seen seen seen seen appui pour appuyer nit ñi 20 pour cent dañ leen appuyer parce que fera le bilan et dinañ ko transmettre ak qui de droit vraiment donc am nañu moyen suñu politique parce que politique bi dafa war a jàll damay ñaax nag partenaires yi nekk ak usines yi euh, entreprise yu nekk ci benn ci région yi ci département ci commune yi ñu jàppale sport bi parce que y a la matière te dañu bëgg créer encore benn pôle de développement sportif sportif de développement waaw dañ koy évoluer développement sportif lay doon mais après day nekk sportif de développement parce que dañ koy ubbi vers la société vraiment loolu mooy suñu mbébét te def naa ko acteur yi fi nekk yëpp loolu moo leen tax donc euh, gàcce ngaalaama waa Thiès jërëjëf merci